Euh, Tant que yi day que jam, ndax euh, dañ fi jaaroon juste pour nuyu suñu camarades yi euh, ndax dañ leen xaw a gëj a gis moo tax ci élection yi ñu ne ñu voilà il faut ngeen ñëw ko ñu effectivement boo rappelé woo en 1998 daral gi bokk na ci daral yoo xam ne ak goxu Sénégal yo xamné ci lañu njëkkee buñu euh, démé pour euh, créer suñu parti donc c'est normal ñom itam ñu rappelé wu loolu pour ne ñu il faut effectivement comme liggéey baa commencé wat ñu jaar fi comme nu ñu fi jaaré won en 1997 fin 97 sax la donc ñu né nak fi ay militants kese fi nekk ay responsables parti kese fi donc il faut ñu dem nuyu leen waxtaan ak ñoom doléance nag indi wuñu fii euh, ñoom itam defuñ benn doléance laajuñ kenn dara mais en tant que responsable am na constater, ñu constaté véritablement yaakaar ci gouvernement bu bi wax nañ ko dégg ngeen ko am nañu aussi que dinañ leen jappalé surtout ci aliments de bétail aliment de bétail bi cher na lool man mi wax ak yow damay sàmm tuuti. donc gouvernement bi na seet daan nan lay def pour alléger njëgu aliment de bétail cher na lool loolu nag ñu ngi ko koy ñaan ci tuur ñëpp ñuy jaay ci daral ñuy sàmm ak senegal yëpp soxla nañ ko man wax naa la <laughs> soxla naa ko man déjà personnellement donc ñeneen ñu wax a noppi ñoo xam ne ci la ñuy xëy ci la ñuy fanaan Je suis très heureux. Je suis très Il y a à peu près 15 jours ou 16 jours. Je suis une réunion de DPE Boumoudj, La direction parti. Je suis au gouvernement de Neko. Je suis campagne de campagne de production agricole. Les paysans ont fait dans le Premièrement, ils ont fait le Dieu. Deuxièmement, ils ont sont aussi. que jiw boobu mu egg ci ñoo xam ne ñoo ko yelloo maanaam ñuy béy luñ ci teg mooy euh, loolu premier ministre sax a ko wax mu ne gerte yi jiw jiw bi daal matériel bi yëpp daal dina egg ci ñoo xam ne ñooy béy ñooy béykat yi loolu nag loolu la ñu laajoon 17 avril mu mel ni déglu nañu côté boobu espoir bu paysan yi am. lu leen defal je pense mën na leen may yéen ngeen am espoir aussi euh, ci seen problème